mbir mi muntanya, munta ñak lu tax munta ñak parce que wolof ñay dafa ne bala mu ne naam nafa motak tak, ma def wote bi wo bureau national ki ko jité ma ibrahima top mi nek sama gina sama sama wet ni ku ci top ma sama régional senu sek mo ngi ne top mo jogu ñew lu tak ma ne bala nga ne naam nafa kale nam lu ñu bëgg ñun parañ lool ma sunu mebet ci ñom xale yi fu ñu bëgg a ten seen tànk ñun parrain loolu mooy suñu titre tey dama di faral wax chaque fois xale yi ñoom ñooy suñu titre ñoom ñooy suñu trésor vote bi boo gis ma def ko du nenn parce que fu ñu jëm maa ngi toog di ko xool te wag mag day yendo ci àll te du fanaan ci àll mukk ilaa yawmi diin hmm. xale yi nañu delloo seen xel yi xale yi ñoom lañu am tey ñoom lañu am ëllëg ñoom ñooy sunu lépp waxoon naa ko keroog ci émission bi sa baay sa yaay mu di xëy di lijjante di la jox pour nga ndékki di la jox pour nga añ di la jox pour nga réer bàyyi boobu dafa am lu mu sentu ci yow mooy noppaluku noppaluku boobu baay bi mënu ko am loolu mukk tànke doom bi tekkikul loolu moo tax dama ne xale nañ delloo seen xel ci ginnaaw réforme mu ñu wax nii naam dafa ne légitime na naam dafa ne yoon la naam mais boo xamul fooy jëm da ngay delloo ci ginnaaw mooy lan ak lan naa bëgg a expliquer foofu mënoo am sa nga bañal ko dara ci àdduna mënut a nekk mais da ngay digle loo xam ne ci njaboot mun na continuer mun na doon lu leer mun na doon lu wóor ci njaboot bi boo ko defee nag li nga bëgg nga am ko njaboot lu mu def na ko am. li may ñaan njaboot bi surtout ni may ñaan sama nattango parents d'élèves yi waxoon na leen ko nit boo am confiance ci moom mu di la jittal ba la woo war nga teew nit boo nga am confiance ci moom nga ne yaa ma doy ak fu nekk ak fu mu mënta doon ba woo rek kay nga wuyu ko man nelootuma guddi nelootuma bëccëg ngir njobot gi parents yi nañ ma jàppale yàlla takk kale yi nañu delloo ci classe yi loolu mooy sunu avantage ñooy avantage xale yi mm. mbir mi.

te lu ma leen wax ne ko wax loo xale yi mbuur xale yi mbuur élèves yi na leen sant na leen parce que nit bala may cër delloo ko cër jox nañ ma jugal ma delloo leen ci jugal mais lu ñu ma respecté respecté dafa am ñoo xam ne dañ ma ne yaay sunu maam yaay sunu papa yaay sunu nijaay yaay sunu lépp nangul na leen ko ñoom tam ñun nangul ma lépp lu ma leen sant pour ñu def ko dama ko defal donc dama leen sant tey je vais une réussite suba kale yëpp nañuy ñëw ci école yi composition dañu démarrer suba composition bi nag mooy sunu jàmm composition bi mooy sunu réussite du ma gudd wax parce que sama xol dafa tooy te sama xol dafa fees parce que xol bu mu tooy mu fees booy continuer rek da ngay wax loo warta wax da ngay dépasser loo warta dépasser maa ngi ñaan xale comme génn nañu lu ñu bëgg wax nañ ko dégg nañ ko tàttan nañ ko ñun aussi dafa am fu ñu war a yóbbu seen doléance bi ci kattan sunu borom lol ma invité bureau national pour ñu ñoo fekk assemblée bi invité bureau régional pour ñu ñoo fekk assemblée bi ñu déglu xale lu ñu bëgg ak fu ñu bëgg jëm ñu jël doléance ñu mais bu ñu bëgg jël doléance du ay problème bu yomb du ay saga, du ay du ay tal, du ay yak yak. nañu saga nañu nañu tal nañu bañ dépp lépp lu war jëm ci côté maa ngi leen ñaan ñu teg ci souf suba na ñëpp regagné la classe ñu def composition bi ci jàmm ak salaam commencé ci rahman rahmaani rahim yi ñu ko ci alhamdulilahi rabil alamin loolu moy message bi li may lancer ci parents yi moy message bi li may lancer élève